والقلم وما يسطرون asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu sunu tur mooy Hamdi Moustapha Diop di jëwriñu daara ji di daarul Habib yu tahfiisil Qur'aanil Kariim wa tarbiyatil islaami wa tadris al ulum shar'iyya di daara joo xam ne mbooloo mu takku mi ngi fi ndax li fi nekk toll na ci ñett téeméer ak fanweer muy ay góor ak jigéen di daara joo xam ne it eh, dafa làmboo di jàngal ñu mën a wax amit ab xaaj bu fi nekk boo xam ne ci ñu wax la muy ñi nga xam ne ñoom ngi doon jëflante léegi. ci wàllu benn xaaj bi nga xam ne moom dañ fay nekk di jàng te mënuñoo wax muy ñi ñi seen borom natoo ñu mënuñoo wax mënuñoo dégg ñu leen di tudde ci réew mi muuma. li sabab seenum njàng itam mooy yàlla dafa maa natoon ki topp ci sama taaw Habibullahi eh, moom nag bi mënta wax itam teewut bi mu matee jàng it comme man ab jàngalekat laa jàpp ma ne daal sama dom no ko wara wacc rek muy nonu euh man don sa la sa borom na ngir jéem xol numay def bam jang euh booba it fekkul ñu am ci ben experience wala eh, ñu xamone fenn fu ñu jàngalee ku mel waye dama damaa lo yalla rek xamne sun borom moom limi def euh bu ko soobee mu def ko ci ki ki mën wax waye bu ko soobee mu def ko ci ku mën wax ci coobareem lay defee ak kàttanam bañ tambalé sun borom li ñu ci ay buntu ji ubbiku xam ne ni ñuy waxale kii dal baa ne ko neel baa mu ne baa nga ne ko neel siin mu ne siin nga ne ko neel miim mu ne miim moom boo ko waxee loolu du la dégg ndax du ko mën a wax waaye nag damay jël bant bi rek teg ko ci xarafu baa jox ko bant yaar ko ne ko teg ko ci xarafu baa mu teg ca bu ci tegee ba xam ne teg na ko ca ma teggi teg ci siin mu teggi teg ci siin mu teggee teg ci miim mu teggi teg ci miim day dem ba nga gis ne boo ko bàyyee araf bu yëkkatee bant bi dana ko teg ci baa bu ko yëkkatee waate teg ko ci bu ko yëkkatee ko ci mim bu ko ko ci alif bu ko yëkkatee waate teg ko ci laam bu ko yëkkatee waate ko ci laam teg ko ci hoo bu ko defee boo gisee xam ne mi ngi ko def ci araf te jafa sewu ko rek ma eh, dalal sama xel ci ne kon li ma ko doon jàngal xam na ko boo léegi it nga def alif laam ra xaa miim alif nuun muy rahmaani bu ko defee loolu boo ko jàngalee ba noppi am na lu ñuy wax test bu ne foofu maanaam lu ñuy wax tamarin ci wàllu njàng test bi mooy alif laam jàng na ko ci alif laam laam foofu bu ko bu ko jàngee booba gis na xam na ko dama koy delloowaat ca lam jàngoon damay teg sama ban ci alif gi liyaar ko ne ko kii ban araf la bokkal ci li nga weesu bu xoolee la weesu da ngay daal di gis mu teg ko ci alif nga xam ne kon ko woo araf dugg na moom nga laaj ko laam mii nga jàng ban araf nga teg bant bi ci laam ne ko araf bi ban araf la bokk ci li nga weesu mooy bu xoolee la mu weesu nga daal di mu yëkkati ba nu teg ko ci laam nga daal di xam ne boobu araf dugg na. ci loolu ngay jàppee ne xam na ko ak bind gi mu ko bind gisu ko bu ko noonu lay def ci araf yi bu araf yi jàll bu araf yi jeexee ma ñëw moom ci marque marque yi kasalik bu tàmbalee jàng marque yi marque gu mu jàngoon rek eh, dama koy delloowaat ci li mu weesu laaj ko bu mu ci bokkal bu ko defee bu ko xamee rek nga xam ne xam na ko moom itam noonu la saa yu ko jàngee ba. moom nga jàpp ne moo ko na ko dëpp li mu doon jàng nëbb ko bindloo ko ci suuf mu bind ko ko bindee mbind mu aw yoon rek nga ne mën na ko. defee nag saa yu noppee ci loolu bu ko bindee ba noppi du ca duñ ko duñ ca yem ndax dañu bëgg mu dëkk li mu bind mu li mu jàng mu dëkk dangay jox alloo ak daa mu dem toog ne ci sa kanam du yor dara du xool li mu doon kii de bindaat ko noonu te du ko gis. bu ko defee moom itam bu ko bindee te gisu ko mu indi ko nga xool boo amee ay njuumte yu ca nekk nga jubbantil ko jox ko mu xoolaat ko jàngaat ko ab diir bu ko defee loolu moom lay daal di dëgg allo ji da koy jox mu jàngaat ko ab diir bi ko bindee ba noppi. bu ko defee woowu yoon daal ci lañ jaar ak ñoom di dem muy yokk di dem muy eh, yokk ba ñii nga gis ñu nekk fi xale yi am na ñoo xam ne ñu ngi bind sumun jàng bind sumun eh, bind bu tooy maanaam dañuy xëy jël sumun jàng ko tari ko te bind sumun moom képp kuñ jàpp ne mën na koo jàng tari ko dañ jàpp ne kooku mën naa mokkal alxuraan kon ñoom ñi am na ci ñoo xam ne jàpp nañ bu buñ leen taxawoo. mën nañu wattu alxuraanu karim nga li tax ma ber ko mu far féetewoo leen damaa rafet njort ci ne sax moom mu nga xam ne mënta wax xëy na suñu boom jox ko expérience mu mën a communiquer moroom yi nga xam ne mënuñoo wax ci loo xam sax man naa am ma am ko ci waaye mën naa am moom daal suñu moom jox ko ci xerañu boobu ndax suñu moom dafa dafay maye bu ko defee loolu nag moo tax ma féetlu ko bi muy door dama ko ci doon jàppale waaye daanaka dama mujj dama ko bàyyi ak rek waye mom mi ngi dox ba mi ngi avancé ba ba ba baax a xereñ ah, sax ñi tari lu ma ñett dañ taral dañ dañ wondo ñi tari te ku jina dañ la siiwër te li ngay tari dañ ko baye xel ba bo yaqé mon la yaq nga ñi jangale moy day tari ci suuf tari bobu nak mom par ben bat la ma a doon ndax palaat bi yu binde mën na jël ben bat wala ñaari bat bo wé day bind bat bi maas ko def ci laye ak suqee la ja war ba nga xam non la mu far bindaat ba ci top mu far bindaat ba ci top lool lay wax ne eh, technologie weesu na foofu ndax mën nañoo am benn tableau boo xam ne lim jàng lépp rek bindanoo benn yoon ñu xool ko kuréel yoo xam ne baax na mu bës bu doon rek loola far wala mu bindee ba mu fees mu bës bu doon mu far loolu am na. mais nag comme ëgguñ foofu itam li ñu am rek lañ jël fi mu ne palaat boobu bu ci par benn baat ba mbind mi àgg eh, lay lay doog a dem ci table table bi sax eh, luñ luñ yokk ne bu njëkk daw dem ci table dinaan jël ëlloo dem ak daa dem bind ko ba mu àgg mu indi ko ñu corrigé ko ñu corrigé ko xool yi xataa mu kii waaye lay table bi. Eh, mën naa taxaw nii nga xool mu daal di bind li mu bind lépp àgg nga war ko yejee ay njuum te mu defar ko nga jàll ci keneen waaye loolu moom bu amoon na jumtukaay yoo xam ne moom moo gën a dëppoo njàng mi daal yaakaar naa njàng mi dana gën a yaatu dana gën a gaaw dana gën a yokk waaye nag eh, gannaaw dañuy nab nab yi itam fi ñu toll rek la ñuy tolloog moom di dox ndànk-ndànk ba bañ koy weesu. loolu itam jullit yi nga xam ne seen loxo jot na seen gannaaw war nañoo xel loolu di fexe ba eh, créer fi caisse sociale goo xam ne. ñoo ñi nga xam ne dañoo war a jàng te mënuñoo wax te bëgg a jàng te seen wayjur attanuñ ko ñu jàpp leen ci loolu kon julli ñi nga xam ne mën nañoo jàpp ci ñooñu dañoo xam ne am ñu ñoo xam ne wala ñu bëgg a ñoo xam ne ci muuma yi seeni wayjur amuñu kàttanu man man leen a fayal waaw loolu ku ci mën jël sarti loolu moom dana am solo lool am na ci wax ni bind yaakaar si am na la toll nga xam ne moom leem wàcc kooku ci ñi ma lay am na ci ñaar sax kenn ki mi ngi wax la mu kenn ki mi ngi yéen a am na kasiran ñooñu ku ci nekk mi ngi jàng bind sumun te ragal nañ ne bu ñu wàccee it dañu mokal a mokkal. bi ni'mati rabbika bi majnun